ngeen li mu jëm nag ci ki nga xamante ne euh, mooy euh, xale bu góor boo xam ne beneen moromam la tiré bal fital mu daldi di faatu loolu nag gannaaw bi na raxasooto ñu gis euh, fital boobu kenn ki jël ko daal tiire keneen ki Umar Mbow ginnaaw jéeye bi ñi dëkkee ca koñ coon sàmb bi nekk ca waxinaan nimzat fees dell ci kër ki nga xamante ni dañ ko faat fii nag jooy ak ay yuuxu nga doon dégg fu ne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 mais nga bàyyi ko fa noonu dem ko si ay xale dem ba ko ak xale yu ndaw patron bi moom moo yor bërëbu liggéeykaay bi moom tam dafa def erreur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 ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biir réew da a di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko